jeex ay manifestation ba muy am ay arrestation yow naka nga jàngate euh, interdiction yooyu waaw xam nga <clears throat> dafa doon waxtaan boo nga xam ni nekkuma ci à l'aise maanaam féexuma pour wax ci xam lu tax euh, olof yi dañuy wax ni bu ndox tuuroo ñii ne nañu an bàq mais bàq amul njariñ <coughs> kon rootiwaat moo fi sës rootiwaat nag du nii laa defoon ak kii nii la defoon loolu it am na lu ci olof yi wax dama bañ a egg li ma bëgg a foofu mooy man ci sama gis-gisu àddina ak sama tuuti expérience bi ma am au plan politique ak ci doxaliinu àddina ak sama tempérament ak peut-être même sama éducation li ma jox mooy je vais toujours vers les solutions et non vers les problèmes solution mooy euh, coow bu amee ci dëkk lu koy fay luy indi dal luy fexe ba nit ñi nekkaat ci jàmm moo gën luy xam ay maintenant comme le disait Abbé Diamacoune dama koy citer toujours daf daan wax ni bëgg naa dëgg bëgg naa jàmm mais jàmm ci biir dëgg jamais de paix sans la vérité loolu mooy lan wax naa ko léegi dama koy baamtuwaat ñu ñi toog fii dañu doon li tubaab di tudd ay privilégiés ndax yaa a des millions de Sénégalais quatorze quinze millions peut-être plus mais ñun ñii la ci yàlla baaxee tey ñu mën a toog jàkkaarloog télévision di wax ak sénégalais ñu duñu dégg te ñu ñu ëpp xam-xam rek ñoo ñu déglu ñu ñu ëpp xel ñoo ñu déglu ñu ñu ëpp expérience addina ñoo ñu déglu mais ñun la yàlla may privilège boobu donc bu la ko yàlla mayee jàpp naa ni am man mooy sama gis-gis boobu da nga koy jëm a utiliser à fond pour mu jariñ askan wi li ma bëgg a wax mooy ku wax tey da naan constitution bi moo ñu may droit marche c'est vrai mais constitution boobu ngay cité dañ koy da koy cité ba mu jeex la constitution est là mi ngi nii dama koy def rarement lay génn presque je peux dire li ma ko def bariwul di dem ci waxtaan bay yore un document article huit constitution bi moo la may droit lii droit lii liberté de marche liberté de ci de cela mais ligne bi ci mujj daf la wax ni liberté boobu nag pour nga doxal ko pour nga exercer ko ces droits et libertés da nekk en conformité ak benn loi loi boobu mënuma ko fàtte parce que dóor nañ ma ci nañ ma ci kaso pour que ñu mën a am loi boobu donc combat yi ñu mën a nii kenn gënuma ko placer pour wax ci parce que bañu ko doon mën kenn xalaatuloo ni mun na am c'est la loi 78 02 du 29 janvier 78 donc constitution bi may nit ki mu def manifestation même constitution boobu moo jox autorité bi possibilité interdire la manifestation il faut également que vraiment ñu clair ci li ñuy wax waxuma nag ni autorité bi li mu def jaar na yoon wala jaarul yoon mais dama ni constitution bi la jox yow nee na nga nee na mën nga marché fii mën nga marché moo jox à l'autorité même droit ni ko lii ak lii bu amee mën nga ko interdire loolu il faut que aussi ñu di ko wax sénégalais yi muy dugg ci seen bopp beneen bi ci topp c'est ça dans la pratique gouvernementale nga koy xam li may wax ni mu ko dund du benn yoon du ñaari yoon nit dina def demande autorisation pour def dara def déclaration de réunion comme on dit nekk de très bonne fois professeur day jóg pour des raisons par exemple il est dans l'éducation nationale gis na ne am nañu seen i yoral nañ leen lii yoroon nit ñu war na ko kaas war na def c'est son droit le plus absolu mu woo ñaari nit ñett ñeent ne leen gars yi naka la ñu def pour régler tel problème ñu trouve ni pour def ko il faut faire une conférence de presse par exemple ou bien il faut faire une marche il faut faire autre chose xam nga moom bonne foi boobu la àndal autorité bi responsabilité mi yamul foofu responsabilité mooy xam loo xamul yow moom mi ko initié j'ai pas dit que c'est le cas mais dama lay wax expérience bu mu dund autorité bi ci boppam dina am ci mus le professeur là information bu nga xam moom mi initier affaire bi amu donc responsabilité mi mooy loolu yëpp mu jël ko en compte maintenant pour jël une décision pourquoi ñuy marche pourquoi ñuy meeting pourquoi ñuy def manifestation waxuma ñi dama ni de manière générale nit ki bu koy def am na lu ko neex mu di ko wane wala am na lu ko naqari mu di ko wane bu ci nekk droit am la fi nga ko mën a defee fi nga ko mën a defee mu jur jàmm indiwul benn problème jàpp naa man ni bu dee ne loolu mooy sa objectif dajale mbooloo gis nañu la première manifestation qui a eu lieu vendredi qui a été une très grande tout le monde était émerveillé parce que bañ koy woote ñii naan dina am nit ñi naan du am nit les Sénégalais ont répondu massivement loolu mu am jàngat jàngat bi mooy euh, et j'ai bien aimé xëy na c'est hors antenne mais professeur bien que miinante wuñu mais damay dégg mu am attitude responsable boo man dama koy am ginnaaw ba mu weesoo yenn jamono yi nga xam ni jaar nañ ci j'ai toujours dit du ma dem ci une manifestation non autorisée loolu nag sama option la te jëkkewu ma ko woon xëy na avec l'expérience lage les responsabilités et mooy tax nga egg ci loolu mais yii yëpp dafa lu ko indi mooy officiellement maanaam li ñuy wax ju di ko dégg dañ ni problème mu euh, augmentation prix de l'électricité moo ko indi mm-hmm. lii may wax nii du tey laa ko jëkk a wax dem naa ci directeur général Senelec wax ko ko def naa conférence de presse le 6 passé wax ko et c'est ma position addina bi particulièrement Sénégal passé ñu ci wàllu gouvernance foo nga xam ne mën nga jël toute décision nit ñi appliquer ko à la lettre te xamuñu lu tax nga jël décision boobu dañu nekk dans un monde de communication et de concertation. Absolument. donc moom en tant que directeur général de la Senelec la direction de la Sénélec bu ñu ak même l'état du Sénégal bu ñu demee ba jàpp ni yokk courant mënul ñàkk am na bu ñu demee ba jël la décision parce que olof dañuy tàggu ku dul tere yomb na ki la mënta tere tàggu ko yomb na mais àddina dañ ko rafetal te loolu nag weesagul am na ay association de consommateurs am na ay mouvement je l'ai dit je le répète un mouvement comme Y'en a ku nekk xam ne ne àndul ak le gouvernement du Sénégal mais c'est des porteurs d'opinion c'est des porteurs de voix Omar fay mii toog moo ami mon frère Omar mii toog c'est pas quelqu'un qui mobilise des foules du nit koo nga xam ne bu jógee ñu ni oh mbooloo mi ko topp ni mu toll mais yàlla may na ko kàllaama mu mun wax ak sénégalais ñu déglu li muy wax lan la mais ñooñu dëgg leen di woo ñu toog nga ne leen situation bi nii la demee lii ak lii ak lii moo xew dégg naa sax kenn koo nga xam ne boo ko jàpp boo ko déggee dangay yaakaar ni c'est un farouche opposant du régime munuñ mooy man ci wàllu électricité buñ ma waxoon lu tax ma comprendre maa koy jëkk def donc j'ai dit euh, euh, je le répète weesul nañu waxtaan ak les différents responsables wax leen la situation li qu'est-ce qui se passe parce que man pour nit mënuma tax a wax lu ma gëmul ci àddina ya des choses que je ne comprends pas te bëgg naa ko nag comprendre mais justement est-ce du looloo tax tey jii euh, amaana ñu bëri woon ci marche boobu bëgg comprendre mais ci loolu pourquoi tey jii euh, état war a taxaw sur la défensive euh, manifeste manifestation bi autoriser woon nañ ko bàyyi leen ñu dem mu jaar yoon ñu gis ne que saa yu ñu ñàkkee autoriser manifestation ci la am ay arrestation ci la am ay blessé amaana ak ay mort dans certains cas lan moo tax tey jii ñu war a tout le temps nekk sur la défensive bañ leen bàyyi ñu ñu manifester normalement mais Aïcha état dafa mënuloo bàyyi n'importe où aussi ñu defa def manifestation xam nga saan wuy del di dem di dellu xam nga lu si problème Sénégal maanaam ñun bu ñu nekkee ci position d'opposition pos li ñuy défendre bu ñu demee au pouvoir défendre leneen mhm. ëllëg bu ñu ñëwee au pouvoir défendre leneen bu ñu demee à l'opposition dañu amul une position constante mais amul benn réew dans le monde boo nga xam ne fu neex ci biir réew mi dem organe manifestant n'existe pas dans le monde ah, solo Amérique mooy daanaka si li ñuy wax mooy démocratie bu jiitu si si wàllu àddina gis nañu ni nit yi dañuy manifester devant la Maison Blanche jàkkaarloog bureau ovalu président di yooxu ngir ka fa nekk dégg leen gis nañu itam gilet jaune jaune yi France lu mat ay weeri weer ñu manifester fi nga xam ni daanaka moo di daanaka buntu Élysée Macron nekk si biir wala ne ko fa waaye ñu ngi leen di dégg lu tax tey ji nii ñun bu fekkee ni safaan la ñuy bañ jël exemple si ñoom waaye bu fekkee lu ñu arrangé la ñu naan la xoolal la France xoolal les États-Unis bon pour ne pas perdre le fil bi moom parce que c'est très important pour may ma rek ma eggale loolu après je reviendrai si vous voulez bien je parle du cas de la Sénélec dafa am ñu lay wax xam nga dañu hausse bi le premier la war a tàmbali premier décembre ma gis ay nit yu wax ni par exemple ku ni man sama facture treize mille laa doon fay actuellement maa ngi fay trente ou quarante mille kenn ni la cent cinquante mille laa doon fay ba actuellement ñu ngi may faylu neuf cent mille wala un million lu yomba rek la de point de vue la Sénélec naka demandé na laaj ku nekk ci cas boobu obligé même nañ suspendre paiement wu sa facture du wàññi dara waxtaan la nga indi sa facture boobu à la boo ñëwee di nga fa fekk technicien de la Sénélec nga ne ko man liilaa laa daan fay lii laay fay léegi waxtaan boobu bu ngeen ko defee bu normalee di nga ko xam bu normalul di nga ko xam suñ ko defee benn nit ñaari nit ñett nit situation boobu dina dellu siwaat normal ñoo xam ne lii c'est dans la transparence que ça s'est passé weesul à mon avis c'est une porte boo nga xam mun na permettre ñu régler un certain nombre de problèmes troisième question ci problème Senelec et je termine sur ça waa Senelec ci seen bopp parce que boo nekkee ci sa kër nga dem ba jàpp ni kër gi kat am na lu mu laaj yow yaa war a joxe le bon exemple bu dee ni ñoom du ñu fay courant Senelec au moins nañ def effort fay 10 pour cent. non dañuy fay. waaw attends je dis bu dee j'ai bien compris je pose des hypothèses. Uh-huh. dama ne bu doon ne fay nañ def effort fay 10 pour cent bu dee ñu ngi fay dix pour cent nañ def effort fay 20 pour cent les autres sénégalais xam ne ah ñii kat def nañu au moins un effort pour participer au redressement de la boîte bi nga xam ne sénégalais yëpp ci am njariñ mais ñoom ñëw ci ëpp njariñ. parce que yow quelle que soit la situation bu weer bi dee du Sénélec lay fay te ñoom Sénélec moo leen di fay donc c' est des aspects de mon point de vue suñ ko indee dans la contribution war na mën a permettre quand ñu trouver ay convergence yoo nga xam danañ génn ci ay situation maintenant xeex sànnante xeer dóorante lacrymogène ça ne règle aucun problème la preuve tey man bi ma déggee ñu arrêté ay journalistes demandé a ma famille dama jóg solo maa ngi dem pour apporter mon soutien aux journalistes parce que ñoom demuñu foon pour manifester j'ai appelé autorité sur place mu ni may journaliste yi ñu jàppoon dañ leen jaxase woon ak ay ay ay mais quand on a constaté que c'est dañ leen bàyyi ñu dem c'est pour dire que violence ça ne règle aucun problème donc de mon point de vue il faut qu'on revienne à la sérénité ñi war a wax wax nit ñi parce que am réew boo koy jiite aussi da ngay wax ak nit ñi il faut communiquer avec les gens ñi war a wax ci problème dañ ciy wax ñi ñu war a waxal dégg li la wax à je pense que vraiment